Bienvenue sur Salam Vision. وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمرا كل ci onze billah bisimilah inna waliyallah jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe moom Cheikh Modou Bamba Xaadim Rasul gàcce ngalaama Cheikh Modou Kara Mbacke noonu ne waaye ñu ginnaaw mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu di leen sant di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu ngi fii si Touba waaye fii ñu nekk dafa nekk bërëb boo xam ne ñun suñu bërëb la suñu makkaan la muy eh, sunu sunu suñu wasile fi nga xam ne moom la nekk tey nag ñu bëgg ñu fas yéenee commencé li nga xam ne moom la ñuy mébét ñu fekk suñu jëwriñ ñu bëgg a waxtaan ak moom bëgg koo laaj ay question mu toll sëñ bi ñu ngi lay siyaare. ñu ngi lay delloo siyaar. tur bi naka la. Mouhamed Diop taalibe Serigne Cheikh Oumy Mbacke bi Serigne Fallou. Mouhamed euh, ñun dañoo bëggoon a xam lan moo waral seen taxawaay si màggal gi. waaye taxawaay bi de moom lenn rek la mooy jaamu yàlla. ni ko Sëñ Tuubaa bëggee mooy xidma ak ak bernde ak cant loolu mooy màggal gi ci ci loolu lañ taxaw nag. dimbale jaam ñi taxawu jaam ñi dalal leen ku ñëw ñu dalal la ci jàmm ak salaam euh, bern la boole kook ay cant waaw loolu daal mooy màggal gi rafetal ko daal waaw. te rafetal mooy dégg cant. waaw rafetal ci lépp rek moom daa maam rafetal ëpp mën na lépp daal waaw ëpp mën na lépp màggal moom ku ñëw war nga xam li lay indi ci màggal gi. màggal moom dafa kawe comme ni ko Serigne Sall yi waxee woon rek du lenn lu cant ah, suñ tubaa dafa woote lu mu woote nag ñëpp xam na ko mooy cant kaa lañ la ma borom kaa lañ màgg leen suñu suñu borom loolu nag ah moom lañ ñaan taalib yëpp buñ ku ñëw bàyyi ko xel incha allah. te bëgg nañoo xam tamit lan moo waral dëgg dëgg dëgg màggal gi parce que xam nga parfois damay dégg suñu bokk taalibe ñu bëree bëri ñoo xam ne dañuy parfois dañuy réer mbir li nga xam ne moo waral màggal gi Eh, ñu bëggoon nga indil ñu sa boo boo ñu bëggoon indil ay kàddu yu ndaw yoo xam ne bu ko defee ñun ñi nga xam ne ñun ay murid yi nga xam ne tey ñu ngi toog xamuñu lan moo waral sababu màggal gi loolu lan bëggoon xam lan moo waral dëgg-dëgg sababu màggal gi màggal gi suñu borom bu mu liggéey ba ba noppi da dama moom moom da koo fay fay gi mu ko fay nag mooy mooy mooy màggal gi moo waral mu woo kullu kuy ana murit ana muritullaahi la bàyyiwul kenn bàyyiwul julit bàyyiwul musul euh, chrétien bàyyiwuñu benn bàyyiwul benn mbindeef ñëpp la woo ndax suñu borom da koo fay gën gi fay li mu ko fayee nag mooy mooy màggal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam màggal gi lu lu màggal muhammad rasulillahi suñu borom màggal yàlla ak rasulillahi ak sëñ Tuubaa màggal gi loolu rek la maanaam delloo yàlla njukkal maanaam delloo ko gëddam delloo suñu borom cër bu mu am moo waral màggal màggal boo ko diggee kenn moomul màgg ku dul Serigne Touba ku dul suñ suñu borom moom tam moo xoolee dafa liggal suñu borom ba suñu borom fay ko lu mu ko fay tey moo waral jëmmi màggal gi jëmmi màggal nag bàyyiwu ci kenn woo na jinne woo na malaaka woo na doomu aadama woo na woo na mboolem mbindeef boo xam ne rek teew na pour mu ñëw sant la suñu borom maam fay bi ko suñu borom fay moor ko moor ko delloo maam cant gi waaw ginnaaw bi ñu jógee si loolu ñu gis ne tey ñu ngi fii si Euh, kër sëñ bu tedd bi ñu bëggoon xam màggal gi suba nan ngeen koy waaje ak seen plan nan ngeen ko tëralee. waaw ak suba dañoo am ay kilifa. ñoo xam ne seen gannaaw lañ topp. Hmm. muy jëwriñu As. waaw Umar Gueye. ñoo xam ni ñu ngi jëwriñu sëñ Cheikh Oumy Mbacke bu sëriñ Fallou yi. rawatina nag ñu ngi koy mu yàgg fi te bu fi yàggee bu gëstoo gis njabootam gi. ba doyal day doyal. waaw ñu ngi sant nag di santaale euh, sunu kilifa ñun ñëpp muy sëriñ sëriñ Takku Mbàkke bu sëriñ Fallu hmm. mooy sunu mooy sunu sunu njiit ci lépp rek. ñu ngi koy ñaanal moom tamit mu yàgg fi màggal gi suba nag dañ koy ni ñu koy waajalee mooy ay berne rek. waaw berne euh, ak cant. te moom la sëñ Tuubaa woote woon. waaw moom la siñ Cheikh Oumy Mbàkke tamit woote. waaw amuñu ku moom ndax mooy sunu sëriñ tubaa mooy sunu maam Cheikh. mooy suñu sëriñ Fallu moom déggoo ma la sa maanaam maanaam maanaam muy dañuy wax ne lese sa bi moom la saañ bay xeeñ jërëjëf ñun nag amuñu ku dul sëriñ Cheikh Oumy Mbacké waaw teg mooy suñu tey suñu ëllëg moom la ñu yaakaar moom lañu fas yéene liggéeyal moom lañu fas yéene jox suñu ki la jagal ba nga jag foo toll da nga ko tiitaroo waaw moo ñu jagal moo ñu dimbali moo ñu xettali fu mu ñu jëlee mënuñu koo wax bu ñu jege ci lëndëm la ñu jëlee indi ñu ci leer man mii ci laa bokk man xaw ma lu xaw ma lu yoonu murit man tey suma ma doonee murit ba doon bàyyi faal ba mën a liggéeyal sëñ bi ba ñëpp di ma sopp ak grâce à Serigne Cheikh mi Mbacke bu Serigne Fallou man Serigne Cheikh mi Mbacke moo ma dimbali moo ma def murit olof sama olof sax setul woon Serigne Cheikh mi Mbacke moo tax ma dégg olof moo ma jàngal moo ma xamal moo ma moo ma nampatal moo ma yar. ci wetam. moo la boole si yoon bi. moo ma boole ci lépp ñu ngi sant di sant jëwriñu As di sant jëwriñ Umar Gueye di sant njabootu Serigne si Oumy Mbacke yëpp di sant Baye Galas bu Serigne Cheikh Oumy di sant sëñ Modou bu Serigne Cheikh Oumy di sant mboolem njabootam rek ak taalibe ak Baye Fall ñu ngi leen di sant ñoom tamit même Baye Fall ñooy ñooy yoon bi ñooy lépp ñooy branche bi ñooy bànqaas bi ñooy garab bi ñooy échelle bi. si ñoom nga mën a jaar pour mën a raw Sëñ tubaa def ni woon man Ibra Fall mooy sama sama yéegukaay ci moom laa yéeg ba doon li ma doon man Sëñ tubaa kon nag Baye Fall yi ñooy lépp ñu ngi sant kullu bay Fall. rawatina Baye Fall si yoon bi ba tolloo fii Baye Fall dañ see bay waar bu rëy rëy rëy waaw Baye Fall yi nag ñoom amuñu moroom mënuñoo boole wax ak jëf ñoom jëf rek lañ féetewoo wax wax du suñu mbir waaw ñun nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi bàyyiwaat lépp joxaat lépp Serigne si Oumy addiya màggal gi ñu ngi ñaanal mboole mu kilifa di ñaanal njabootu mbàkk mbàkk yi di ñaanal waa waa waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall dina ñaan ñu yàgg fi ñaanal si Muntaxa di ñaanal Cheikh Amdi Moodu Menda mu yàgg fi di ñaanal njaboot suñ fàllu gi ñu yàgg fi na suñu aboo Mbàkke mooy suñu bunt ci yoon bi di sant nag suñ Cheikh Oumy Mbàkke jërëjëfati sëriñ Cheikh Oumy jërëjëfati sëriñ Cheikh Oumy jërëjëfati sëriñ Cheikh Oumy jërëjëfati sëriñ Cheikh Oumy ba léegi comme ni leen ko waxee rek ñu ngi leen di toppal action yi bu baax a baax lu ko tàmbalee Dakar jox nañ leen ko ba fan biir Touba bu ñëwee biir Touba mooy Touba Mbacke lu ko wër tey ji ki ñu taxawal ni ndaanaan bu ma neex la nag daf maa neex man li tax ma daf maa neex mooy nit ko gëm boppam la nit ko osé la dama koy bàyyi mu nuyoo nii yaay maa ngi lay siyaar waaw maa ngi delloo siyaar bu baax maa ngi nuyu waa salaam TV yëpp di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. alhamdulilah tey jii suba la màggal gi bisub tey mu nekk bis boo xamante ni bis bu rëy la mooy guddi goo xamante ni moom la ñu ngir lu bari di ko ci waaj ngir fas yéenee waajal suba ci bisub màggal gi tey taxawaayu màggal gi lan la lan la ci murit war a def. waaw taxawaayu màggal gi de moom li ci murit ñi war a def mooy préparer ko. préparé ñu jéem a dalalee gan yi gan yi moom dalal leen berndeel leen lu am solo la ndax loolu daf si baax gis nañ ne nag ñun ñun moom ay jaaykat lañ waaye buñ fi ñëwee ba léegi ñëw nañ depuis barkaati démb waaye buñ fi ñëwee ba léegi gis nañ ne affaire yi moom mu ngi ala doom yi moom. dañoo gis benn affaire bu garaaw moo da ngaa ñëw jël isilu murit bu ñu nee murit mooy da sol sa baylaat doo sa jamput bu baax a baax jël say chargeur nag wane na ko ci nag jël ñaari poos yi nag wengal ko ci xaalis bi moo bari wane client yooyu jënd boo dal moo tax nga bëgg. non boo gisee ma def lool man ab murit c'est-à-dire pur laa ponkal bu ponkal waaw bu ponkal laa ndaanaan laa teg waaw léegi boo gisee ma def lool bi ma ñëwee dama jël sama benn balaat ponkal sol ko. léegi bu ma ko solee pour wane daal man ab baay faal laa li may jaay du tax ma sol yeneen yére wala non non damay sol sama baylaat solo wékkoo samay chargeur du ko ambilaa ci dëkk bi wala su ma su ma demee ba nga xam ne sonn naa ma ñëw toog sama place place bële man maa ko yor waaw man maa kontaan ci man maa gën a kontaan ci yéen. fàttali ñu tur bi. maa ngi tudd Cheikh Omar Seck dëkk Saalum Daaru Salaam. Seck bi Seck laa. xanaa mbokku xanaa mbokku. <laughs> mbokku mu waak eh. kontaan naa ci yow. am am na am na beneen jo am na am na am na beneen jo am na beneen jo. waaw ñu ngi jàmm baax. kul sant yàlla baax alhamdulilah. ba léegi nag comme ni leen ko waxee ambulant kat lañ suñu ambulant kat lañ mooy ñoom loolu la ñu gëm te ci lañ nekk parce que dañ siy dóor waar. nijaay maa ngi lay siyaar. waaw ñu ngi delloo siyaar bu baax. Mhm. di la ñaanal di ñaanal sa gars ak ñi nga ànd ñëpp. Mhm. waaw tey moom ñu ngi jógee ba Dakar. ñëw fii Touba. Mhm. waaw di liggéey si quoi. di jaay ay câble ak sart affaire yooyu. da ngeen a si teg si tamit di jaayaale. waaw dañuy màggal si boole si jaayaale. waaw. ba pris yi ngeen di waxaale Dakar ak yooyu noonu ba prix yooyu noonu tàngaloo leen ko fii. non fii moom dañ ciy def te rek yaa ma gën a xam gars yi moom lu ñu bëgg rek ah. yàlla jàmm. Ah. waaw ka kaabu saa saa li muy jar. yii 1000 lay jar. saa nag Dakar yi la koy jaay ngeen ko jaay. non yii la 3 la. 3 ah. mètres la. man bëgg nag. waaw waaw loolu moom yoon la tey tey jii tey jii ñu gis ne tey ñu ngi ñëw Touba. nekk ci taxawaayu màggal Touba tey bu ñu naan màggal Touba màggal bi tax ñu naan màggal lan moo waral màggal gi màggal gi ah màggal de moom wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa moom kenn mënu koy fay war nañ koy delloo njukkal lu ko waaye di def pour fay ko moom mënoo koy fay waaw ndax gars yi na bu ñëwee dañ war a dal dal bu baax sol yëri yi yiw dem siyaar ji dem toog sa dal murid yi dalal leen ñu dalu waaw loolu moom mooy yoon moom ndax sëñ Tuubaa moom kenn amul fayam bañ fiy def lu bon ak affaire yoon yaa am gën xam yu gars yi. dëgg la mais waaw foofu sax bëggoon na am question bu doon malisage ñu bari dañuy ba ba dem te boo leen laajoon porte bi nga xamante ni moo nekk ci biir jumaa ji ci jumaa ji mag ji porte bi couleur bi na la mel duñ la ko wax parce que maanaam ñooñu mën ñëw Touba ba dem te dugguñu ñu biir Touba bi tax ñu naan Touba. Hmm, waaw ñooñu tey ji lan nga leen di wax. ñooñu moom maam ne damaa yaakaar ne dañ xamagul wala dañ jàngul wala dañ xamagul luñ bëgg wala damaa yaakaar ne bëgguñ texe daal xam nga ku bëggu texe moom yàlla du la dimbale yoon bu bon rek da lay jox boo demee ba bëgg a texe nag da nga jël yoon bu baax bi comprendre nga am ñoo xam ne dañuy ñëw Touba duñ dañ dem ba ñëw duñ dugg ci jumaa ji duñ dem siyaare sëñ bi duñ siyaare sëñ Touba duñ siyaare kenn dañuy dem taxawalo am <laughs> ñoo xam ne lekk moo leen fi indi saa bàyyi ma waay am ñoo xam ne lekk moo leen fi waa ji nii day lekk ba suur dem tëdd nelaw xamul sax fu jumaa ji féetee xam nga loolu moom yoon ñu lay jaajëfal waaw kontaan nañ ci yow waaw kay dafa am nag loo xam dama koo gis yaa booy na nga def maa ngi fi rek. maa yaa ngeen jàmm. maa am jàmm baax. tur bi naka la. Awa fan ngeen jóge ñëw. ñun fee Daar Minam. Daar ngeen jógee ñëw fii. waaw. tey ñu gis ne tey jii yéen a ngi sol li nga xamante ne mooy noir blanc noir blanc diggante Yaay Fall la ak baay Fall. tey jii ñu gis ni yéen yéen a ngi ci def li nga xamante ni mooy seen warga tey jii tax taxawaay màggal gi tey yéen ban position ngeen ci taxawee. ah mooy loolu rek xanaa def yu yiw rek pour sëñ Touba rek. màggal bésam bi. ba baa ñëwoo leen fii xam nga di sañse ak yooyu noonu bañ a nekk ci wàññi ak yooyu ba yooyu newoo leen ci. non non ñoo si waañ bi de. Mm. Mm-hmm. mais mais saa guddi gi nii nii moom nekkoo leen ci waañ. waaw guddi gi moom mooy loolu. dañuy doxantu tuuti rek. da ngeen da ngeen di doxantu nii quoi. di xool jumaa yeeg ruq-ruqaan yi quoi. dem ko ah, waaw di ziare ji am na keneen koo xamante ne moom gis naa ko sawet quoi moom moom dafa xaw kii quoi daa mel ne dafa xaw a bëri tiitar yooyu loolu quoi. daa am kersa mooy loolu. yaa def. maa ngi fi. jegesil nii jegesil nii yow moom su ma lay laaj moom daanaka maa ngi yow toll sama réalisateur mag moom mag moom ka moo ah, gannaaw ba léegi yéen a ko gis ñu ngi si jumaay Touba jumaay tubaa ku xolli sama ginnaaw xam ne ñu ngi si biir jumaay tubaa gi kilifa gi maa ngi si siyaar. waaw yal naa la bu wér. mbaa yaa ngi am jàmm baax oh, eh, sant Seexul Xadim rek. tur naka la. Moussa Mbaye. Moussa. Mbaye. mbay Mbaye. Mhm. Moussa Mbaye fan nga dëkk. Yoff. Yoff nga jugee ñëw ba Touba. tey jii tey jii taxawaayu màggal Touba bi tey jii tey ñu gis ne tey ñëw nga yaa ngi sa kaso tey ba yëg-yëg tey jii nga am tey yow ci ci màggal Touba. di sant Seexul Xadim rek. di nga ñaan xéwal gu bëri. di ñaan xéwal gu bëri daal di taas dëkk bi. njàmbat gi daal di wàññeeku coono yi wàññeeku. xéwali saawaan baawaan di ñaanal Sëñ Muntaxa mu yàgg bi lool te wér ci barke Seexul Xadim sama yëg-yëg nag maa am doon ba ma doonee. nongob sëriñ Touba dëggal liggéeyal di ñaan nag mu koy yàggal liggéeyal yaa fi ànd ak suñu Mountakha Mbacké rek googu daa am ndeysaan tey jii ñu gis ne tey yow am nga yëg-yëg bi tey tey ku xool tey li ngay waxee tey ñu xam ne tey jii dëgg dëgg Baye Fall tey jii moo nekk ci yow tey jii yëg-yëg bi nga am tey jii ak sa mbokk Baye Fall tey lan ngay wax sa mbokk Baye Fall maanaam ci bisu màggal gi sama mbokk Baye Fall wax rek ñu góorgóorlu te xam ne Baye yombul sëriñ bi nag ku fekk woon jamonoom moo ngi doon moo ngi doon sol uh, uh, parman foo ko fekk moo ngi doon xeeñoo parfum nag Baay Faal waruñu kaa yab waruñu kaa di dingat waxuñu nag ku nekk fi ko koñ du tux di geeb lu ba réer yaa ko jël boo jógee nan nit ñi dañoo yab Baay Faal yabuñu Baay Faal yaloon yàpp te nag Cheikh Ibrahima moom kenn du koy yab dara kenn du koy yàq na ndax moom liggéeyal na Seexul Xadim ba turan Tuubaa gërëm ko te te moom ba mu doon jébbalu da dama lay jox sama lépp ba mu sof sama jom ak sama ngor du ma la koy jox. kontaan nañ ci yow. waaw ba léegi da ko gis euh, ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy si jumaay Tuubaa gi. ba léegi tey ñu nekk tey ci taxawaay bi tey yu ñu am loo xamante ne tey ji dañ leen koy dégtal pour yéen ngeen mën koo xam waaye tey sama ndaanaan sama ndaanaan gis nga ko nii sama ndaanaan maa ngi nii maa ngi nii waaw sama ndaanaan daf maa réeroon daf maa réeroon mais léegi daf maa feeñuwaat léegi léegi léegi quoi waaw mais nijaay ñu ci jumaay Touba gi tey ji Touba gi fees ba kenn koo xamante ni maanaam amoo fenn fooy taxaw mais tay ji maanaam yow affaire yi demee ba toll fi yëg-yëg bi yow sa bi lan la Fall day day fort xam nga Serigne Touba moo waxoon ne bis bii sa sama bisu mbégte la te bu ñëwatee damaa bëgg képp koo xam ne sama mbégte ñor na la saxal na la na nga ñëw nga santale ma yàlla mu ne nag xeebu ma si xar xeebu ma si ginaar xeebu ma si béy xeebu ma si gileem te xam nga ne mbiru Serigne Touba ñun murid yi xam nga ne Serigne Touba bu ñu wooyee si berne moom ñun moom dañuy bëgg muy neex ah. parce que ñun Serigne Touba ñun Serigne Touba mooy suñu lépp ah. ñun nin mel Serigne Touba bu ñu ko def kon xam nga ne moom sa waay tamit dafa dafa dafa sama xel dafa dem léegi léegi léegi ci li pël ba waxoon pël bi ne woon na mosuma dem Touba waaye ba ma demee Touba gis gis ñuy jël ay ay ay lekk ak yooyu noonu di ko tuur ma ne leen fii àjjana la wala nekkul àjjana <laughs> waaye dinaa la xamal leen de ak Salam Vision fii biir Touba gii sa waay du yomb de deuxième moom dañ koy bàyyi fenn xam naa dafa lekk ginaar da nga tax mu te man xam nga lu ma si gën a jaaxal maasàllaa nag bu ñu waxantee dëgg rek moyens yëpp teg teg teg nañu si moyen quoi moom. moom macha allah defar na lépp. ànd ak ñun ñëw ñëw Touba indi ñu daal ñu fu nooy fu neex tëdd nelaw xëy liggéey. dinaa xamal leen daal ak Touba ak Salam Vision gii. baax na maa ngi dem. sa waay daw na dama leen di làqaltil am lu ma leen jëlali comme ni ma leen koy waxee rek si biir Salam Vision dinañ leen dégtal wan leen lépp li nga xamante ne tey jii ci lañ nekk mu ci wàccaayu màggal Touba gi tey jii nii. guddi bii suba bëse di xëy di màggal sëñ Tuubaa gi waaw mais képp kuy murit wax leen ci wax ji waay kenn waa Salam Vision sama réalisateur mais ma tuuti ma ñëw ma dugal li ma war a dugal am ku ma war a dem jëli indiwaat ko ndax sama gars dañ maa réer comme ndox xamatuma fuñ ne tey jii ñu gis ne tey jii tey jii ci taxawaayu màggal gi tey ji nga xam ne mooy suba la màggal Touba gi suba mooy maanaam li tax ñu naan màggal gi suba la tey jii ci guddi gi nii tey jii ñu fekk la tey ci biir jumaa ji tey jii nga dugg ci biir jumaa ji tey di siyaare tey taxawaay bi nga am tey ak yëg-yëg bi nga am tey ji Serigne Touba tey ba tax tey mu jaral la tey lu ne bàyyi sa lépp tey ji ngir fas yéene ñëw ngir màggal ak Baye Fall tey taxawaay bi tey lan la ak yëg waaw macha xam nga màggal gi dafa nekk màggal goo xamante ni Fall euh, lu rëy la ci ñun maanaam suñu sag la euh, lu toll ni màggal Touba tey ñu teewee ko tey daanaka mbir yi commencé na man moom tey laa commencé gis nga def sama Ilalaay Fall maanaam. yow Ilalaay Fall bi moom la ñëpp di coow. <laughs> waaw tey laa commencé donc euh, di préparer suba tamit tey ñaanal mbokki taaliba yëpp. ak mbokki murid yëpp ñi nga xamante ne ñoo teewee bés bi ngir mi bésum xaadim rasul bi yal na suñu borom defal taw tawféex xéewal gudd fan yokk yàgg wér ak wér la ak sutura gu bare bare bare bare murid dëgg dëgg dëgg dëgg tey ji taxawaay bi tey ji bu dara desee lu dul dernière tey ji yëg-yëgu murid dëgg lan lan la war a doon quoi ci li nga xam ne mooy jafe-jafe Baye Fall waaw mais mbégte mi rek mbégte mi rek la war a doon faal xam nga ni ndeysaan sóoróol bii nii boo ko gisee euh, mbégte mi ngay am euh, kenn mënu la ko wax ñu Serigne Touba dafa def ci ñun loo xamante ni faal macha allah mbégte moom mënuñu ko expliquer kenn waaw moo tax tey xam nga dañuy fël-falaale rek. fël-falaale waaw nga ko gars yi di waxee. ci barke sëriñ bi rek. waaw ci barke sëriñ bi. dañuy kontaan. waaw kontaan naa bu baax faal damaa bëgg ci yow nag. waa maa leen da ngay da ngay dégg dégg dégg Baye Fall. waaw na. ba léegi ba léegi comme na nekk sama jinne bi moom chaque jour moom day ruube quoi moom moom man jaaxal na ma quoi moom day jékki-jékki feeñ jékki-jékki réer man wuy ma man bàyyi naa la fi man dem naa sama yoon bàyyi naa la fi yow xam nga ni kii du ma moom parce que kii ma ne moom dañoo xamante sa waaye amoon nga naa la <laughs> mais mais tey rek waaw waaw waaw waaw jàpp nga ma de mën naa lool loolu kay xam nga nag waaw mais tey man kii mooy bés bi nga xamante ne mooy mbégte murit yëpp hmm. ah. kii mooy bés bi nga xamante ne Fall macha allah kii euh, sunu sunu sunu tawfiix la xam nga looloo waral ñu bàyyee ko fu ne ñëw teew xam nga def nañu def nii xam nga yow yaa ma gën a xam dafa leer. <laughs> maa ngi lay ziar bu baax. delloo ziar bu baax. ok sa waay ba tey si noonu laay jaarawaat jiraat sama yaay Fall bi yaay Fall maa ngi lay ziar. delloo ziar. tur bi naka la. fan ma tax yaa ngi reere da ngaa bëgg xanaa. waaw waaw damaa ko. daan bëgg tamit Serigne Touba moo ko waral. waaw waaw moo ko waral kay. Hmm? moo bëggoon nga nga wax ma nan nga gisee màggal gi tey. xanaa neex. neex na suba nan nga war a waaj a màggal. ah suba. <laughs> nan nga ko war a waajee. lépp kay dañuy dañuy defar lépp. da fekk sa waañ ba wala dangay ñëw si jumaa damay nekk si waañ ba. ah bégal gan yi. Ah. dama bëggoon nga wax ma lan moo waral ñuy ñuy màggal màggal Touba. ñuy màggal màggal Touba xamoo ko. fan nga jógee. <laughs> man Casamance. jógee Casamance ñëw ba fii te xam nga lan moo waral màggal gi. ah. yaa ngi xamu ko xamoo moo lan moo waral màggal lan moo waral gi pare nga jógee Casamance ñëw fi xamoo ko. ah. soxna Faari maa ngi lay siyaare. delloo siyaar ay ca taw feex. dafa am koo xam ne dafa sol benn yére boo xamante ni 1945 la yére boobu dekki woon tey jii gisatu ma ko woon damaa jékki-jékki gisaat ko. xam nga lu waral lool. waaw waaw. tëdd sëñ Touba màggal Touba boo fi ñëwee ci ngay gis su ne. Baye Fall maa lay siyaar yow. waay maa lay delloo siyaar. Baye ngi am jàmm. waaye bu baax tax taxawaay màggal gi. waaye màggal gi neex na trop. te demaguñu fenn ah màggal gi suba la mu neexee nii man est-ce du ma ñibbi sax. man man instant bi dama damaa regg. damaa ma ne ma ne boo ñibbee ba pëli après duñ mujjee kontaan. <laughs> non mën na ne tamit mën nañoo kontaan. mën nañoo kontaan tamit. daf may fàttaliku gars yi lan la pël ba waxoon ah. pël boo xam ne mu musul ñëw Touba ah. pël bi daal daa jékki-jékki rek ñëw hmm. ba dara desul léegi lu dul ñibbi daal na gis ay pax yoo xamante ne gars yi dañ ciy sotti ay soo sotti si ay mbër <laughs> pël bi jékki-jékki daal ne fii mooy Touba ñu ne ko waaw mu ne bis ni ko de boo fii dëkk ah. léegi mais taxawaay à part ça loolu noonu bu loolu tey ci li nga xam ne mooy taxawaay tey li nga xamante ni moo am tey ci bisu màggal gi tey yow ba ñu yëg-yëg tey ji nga am ta màggal gi suba la gis ni tey yéen a ngi ci biir jumaa ji màggal gi lan la màggal gi màggal gi demagul fenn mu neexee nii quoi man mën naa ne chaque année magal gi day gën di yokk di gën di neex te loolu sëñ Bamba liggéey su tey ren bu mille mille milliards nit demee déwén ay cinq milliards ñooy dem chaque année muy gën di yokk xéwal yi gën di am xoolal jumaa ji li mu mel tamit sëñ Touba moo ko liggéey barki Serigne Bamba ñun sëñ Bamba lañ am kese képp moom kese lañ wóolu moom laa yaakaar tey ak ëllëg xam nga ñëw fekk fi ay ay ay ñoom am di rijaal xam nga ñoom ñëpp. non kooku moom Baye Fall la. kooku Baye Fall la. da da doon xoolal xàmmeewuma ko. ma ne da moo ma doon foto da daw sànq ma ne ko diw mu naa ma ne ko kaay da kay wax. non barke Serigne Bamba laa ci kanamu moom moo ma doon photo billah xàmmeewuma ko après sama booy ñoo ne ma kii mooy Amdy Rivière ma xam ne kii nii xam nga moom moom wane wu succès bu mu am ma xam ne kii Baye Fall la. am de Baye Fall nga. barki maam Serap Fall. ko gis nii. dëgg dëgg dëgg dëgg Baye parce que na nii la. donte star la artiste la gëm na boppam waaye gis nga ko nii daa ñëw ba biir Touba wàccee boppam. Mm-hmm. xam nga dund du waaw dund dund Baye Fall jafe-jafe Baye Fall. Mm-hmm. gis nga ko téléphone la jël di foto sa waay. te sa waay ko woon mu dem ba ci biir gars yi da koy xamal li mooy dëgg dëgg Baye Fall. parce que nit ci li nga doon. da ay fa sa bopp ngir nit ñi mën la cee fekk si fi da ngay mën a doon taalibe rek ñu mën a topp sa ginnaaw rek ànd yow rek jëfe li nga ne moom la sëñ bi digle mais boo ñëwee nag di ñu jaay stage ñu gën la koo doon ndax boo siwee ñu ñoo koy waral parce que ñoo lay dëkk suñ micro wala ilaa ñoo lay teete wane la ci biir télé ba askan bi yëpp tamit taxaw ne yow la kon ngàcce ngaalaama yow loolu dañoo koy sante dañ koy gërëmee dañoo koy a baax waaw mais di jaay yow euh, dañee kaddu gi waaw mooy gi kontaan naa tamit ci yow ak scène bi tamit scène bi lan la tuddati Salam Vision Salam non xoolal gars yi nañ ko wëri ji mooy baax baax bi sama <laughs> réalisateur umrana saydana madanan wa hab lana rusda wa tawfiq mais ma tuuti ma am léegi léegi léegi léegi lu ma ñëw Fall Ndiaga siyaar delloo ziar Fall mbaa a baax tur li nga xool sa écran télé baax tur bi naka la tur bi Omar la. Omar waaw fan nga jugee. ma maa ngi jugee Géejawaay Dakar. ah Géejawaay Dakar Dakar. Dakar ah, Dakar nga jugee. waaw Géejawaay waaw. Géejawaay waaw Géejawaay ci fan nga jugee. Géejawaay Géejawaay Géejawaay si boppam gàddaay. waaw ma si xel daga Dakar gàddaay daal ñëw Touba. gàddaay ñëw Touba. lu ko war a àggal si. lu ko war a bisu Sëriñ Touba bi. Sëriñ Touba lu mu defal ñun ñëpp. Ah. waaw tamit communauté bi il faut ñu ñëw. sooseel fi indi wala. non. léegi xam nga kañ semaine avance ceebu jën ba dama daa. Fallou maa ngi nii. sénégalaisateur <laughs> dégg nga ko na koo xam mu ngi ci bi Petit Ndiago Petit Ndiago. Petit Ndiago sax bi. Ndiago bi Ndiago bi tey da ngaa ñëw Touba. waaw. waaw. waaw bi mooy sa premier magasin wala wala bi mooy sa deuxième. bi mooy premier magasin. ba doo ñëw di la a sonal. non ma leen gars yi affaire day daw. mais eh, mais su déwénee di nga ñëw wala da ngay de. Fall Ndiaga ziar naa la. ah ziar naa la baax na ngeen jàmm baax sant yàlla bu baax. tey ji ñu gis ne tey ji yaa ngi biir Touba tey ji sol li nga xam ne moo tey euh, yëre maam Cheikh Ibrahima Fall tey yow ban yëg-yëg tey ji ngay am tey si bisu màggal gi. waaw yëg-yëg moom am moom mooy Serigne Touba. Mhm. dafa bégal ñëpp. Mhm. ndax ñun suñu xol yi dafa sedd. wax dëgg yàlla. ndax gis nañ fi loo xamante ne nii musuñ kaa gis nag boo xamante ne dañ kaa rey ah def si ay ñoom banaan ak ay pom ak yëpp waaw loolu dafa yéeme quoi dafa yéeme. Ah. wax dëgg yàlla kontaan dama kontaan. Ah. waaw fi nekk da ngay rey naa Ngeuleng SV. <laughs> mais ruq yi am na sapeur. non yi am na sapeur mais man xam naa moom sama xiiwate Serigne Touba moom sapeur yi moom mënuñ kaa kii. kon bëggati leen bëggati leen sama réalisateur noonu la ñuy def damay dugg tuuti poussé bu ngeen ma gisaatul nag fekk si kanam dafa am nag ñaan ñoo xamante ne nag ñu ngi ci ginnaaw man damay réer ñoom dañuy réer mais dama leen koy bàyyee